ak xarit bi lan moo ko defal. man jàpp liggéey maa ngi def assurance sama doom sàrwal na pendant trois mois. nu mu tudd Mouhamed Gueye li ma ko doon faj nag mooy surtout Saalum yooyu laa ko doon faj. ci ci waaw sëriñ yu ne dem naa ci. waaw fii nag la ko yàlla dogalee. waaw rendu leen rendu leen de laaj tam waaw xaw ma ndax mooy rendu leen. yéen sax ñu jógee woon bu ngeen koy andi fii nii. non ngi jógee dem saat sama kër la ñu jógee. waaw ñu ngi kii mën naa faj wala mënul faj léegi ma ma indi pour faj ah, bu wéree baax na bu wéree la yàlla dogal. léegi ko yàlla def mu def. ah non bi ma ko indee dafa wàcc rek. ñu dem ba fële mu wàcc daanu toog toog foofu a dafa dafa dee. wax moo ma wax ne ma dafa gaañu. ñaataat la ay vingt ans yooyu rek wala ay seize ans yooyu rek. la doon liggéey. man yu joué tapissier la doon liggéey tapissier la doon waaw. feebar bi amul gravity, affaire bii la affaire u tab yi la mais à part loolu daal yow maanaam constaté woon beneen feebar boo xam ne dal na ko gisuma ci beneen jàpp nga ne daal mbirum dogal yàlla la waaw affaire bi daal moo ko rey moom gis du feebar parce que man sàgganuma samay doom pour ñuy dem ay àll ak yooyu bala ngaa ñëw di nga raxasu bala ngaa def dara di nga raxasu dara jotu leen parce que aussi tamit du ñu bouché ci eh, lan kon ngay kon moom yàlla ko dogal ci affaire mu ko rek avant affaire bi mi sax la ko dal mi mois te man ci mois am li nga wax ni kon am kan, nga yaakaar du li nga la kon ma dem hôpital mhm. dem hôpital man damay dem hôpital man sa canal bu sama dom feebare parce que ñom nañ dañ mané ki hôpital du ko faj comme hôpital du ko faj nak légui serigne yi ñoo koy faj waaw ci serigne yi la dem mu mu koy muy may may mocc muy wàññeeku muy wàññeeku bu mu dess fi ci put bi rek amatu benen problème tey yàlla dogal la yalla ko dogal fi nak mais ke dama xam man fa lay dé ah, waaw damay xey dem waaw amul benen problème Где родился? Где родился?